man di ñi xam dafit xam nañ ko drogué la ñi xam xam nañ ko a récupéré yaa ngi moom mi ngi lay jiñ lesbienne am na yoo xamante ne tamit xam nga rafetul mën naa ñàkk et puis est-ce que xamoo yow bi muy ñëw les hommes d'accord góor dëgg lay àndal alors lii góor dëgg da ngay nekk góor ma ànd ak yow su nekkuloo góor du ma ànd ak yow donc maintenant les histoires de lesbiennes pour une volonté de nuire j'aime les hommes j'adore les hommes moi ñaam ma koy doog a laaj. waaw am na tontu xam naa du ñàkk dañ la ko ah, laaj nag Achille ah, eh, euh, kii en 2010 ou 2010. nii nan moom. loolu la waxee woon nag il paraît que tu es lesbienne ma ne ah mais loolu kenn du ko wax. boobu j'étais mariée avec vrai mec parce que Nero c'est un vrai mec ah. mais Aïssatou tamit lan tooñ rek di baalu na ak barki Demba Ndiaye. mais euh, si c'était à refaire am na yenn question yoo xam ne dootu ko posé. non am naa xaw naa am différence nag quand même ak de lesbienne ou pas Mm-hmm. soo nekkulee góor sax du ma ànd ak yow. Ah, yaay Fall bi muy ñëw ci yow xamoon ni li nga. dëgg laa àndal. mais en général xam nga génne si bopp nit. xam am tendance góor bu am fulla jigéen bu am fulla di liggéey am jom. Mm-hmm. am benn am benn caractère. c'est yaay Fall la lesbienne. am nu muy sa la lesbienne. elle est lesbienne. mais ne la a revendique ça ba nga koy recruter elle revendique ça. elle le ah revendique. elle le xam nañ ko. day la góor di laal jigéen loolu étude maintenant ñëpp melu ñu man góor dëgg moo man dëgg moo may laal. moi j'adore les hommes quoi j'adore les hommes d'accord quand je suis en couple. oui vrai mec. si tu n'es pas un vrai mec tu vas partir hein. moi aussi j'adore les hommes mais pas d'accord. mais pas lan la laayoo ci jigéen jigéen nag dama lay coacher moo tax may ut may ut papi heureusement ndax lu neex walaay walaay. papi heureusement ma jàkkaarloo man nag. <laughs> papi heureusement yaa ngi ko demee. walaay walaay bëgg nga la war a bëgg. moi mariée moi déglu ma rek déglu ma rek. moi hmm? mariée je fais l'amour tous les jours. Eh. tous les jours mariée comme je peux rester un an sans le faire hein lesbienne. Eh. écoute quand même. quand tu es rassasiée. mais écoute tous les jours hein c'est tous les jours. ah si je suis en couple ben oui. góor dëgg laal lan laay doy jigéen góor dëgg koy engagé. génn leen affaire lesbienne seen nopp man je tous les jours kooku mënulee sax buy egg si. ah. ba oui. ku ko mën ñëwal ku ko mënul toogal. caaxaanewu ma ko sax. mais chaque ba doo sonn. caaxaanewu ma ko un couple quand on est couple on fait l'amour tous les jours. c'est tout ay tiyaaba de foofu la ëppee moom. mais écoute voilà et on fait des de de beaux enfants moi j'ai de beaux ah, man amatuma da ngeen di seet nit rek bu ko yàq bu ko yàq may na seen góor dëgg moo fi ñoo taxaw de ku nekk góor dëgg moom I tous les jours. I swear to God I love tous les jours. oh my God. foofu fii jigéen. oh my godness oh my godness. quand même. yëpp dañ la dégg nga ko fii. lan la may on s'occupe de moi tous les jours. avec un homme vraiment quoi donc lan lay doyee si jigéen la jigéen dama xamul sax nañu la si jigéen dow soo ma ko xasee di wax nii ba bëgg a yàq xel nit yi ma leen man seet leen sama jëkkër yi ay vrai mec vrai mec Moustapha Ndiol sa kaw rafet bu baax jikko yu sawee rek moo tax ma baax ko mais c'est vrai mec bah oui ñoom ñëpp ay góor dëgg lañu mais man bu gudd. booy gën a D'autres D'autres. Tu as ah. d'autres maîtres. J'en ai connu beaucoup. J'en ai connu par, j'en ai connu des gens connus, des gens qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. je, je, connais des gens magnifiques. Hein. J'ai euh, j'ai Tafsir, hein. je connais Tafsir, Diatara. Hein. Donc euh, c'est, je me dis, je connais Tafsir Diatara. Qui est Tafsir Diatara euh, ça, Il fait partie de mes vrais mecs. Yeah. ben oui, confrontation. Mais il actuellement je te Tafsir c'est une c'est une on depuis 94. ah ok non célibataire. ah célibataire waaw kon Tafsir kon. lu may takk li may takk di fase moom tam moom on est inséparables. waaw kon doo jël Tafsir yow seen situation di da ngeen bëgg lu neex rek. waaw yi ngeen a daj. non waaw Tafsir j'aimerais bien le prendre. mais looy xaar. on va voir. il est trop occupé mais vu que comme vous l'avez si bien dit. de de à partir de maintenant madame Diatara. madame Diatara voilà j'ai tafsir nag yow. bu j'aime bien tafsir. oui oui. tafsir nag wuy ma ñëwal nag ñaan si mu jeex nag nga dem